ci comme encore bu ñu nee feebaru prostate bi nit ñi alie ñuy wax nit ñi ni leen feebaru prostate ngeen am dañuy ñëw rek ñu prostate la am alors que prostate du feebar prostate organe la cër la de boo xamante ni suma ma ci doon wax dama naan ah senegal bi tey dañ ma woo daal pour ma wax ci affaire prostate boobu ngeen di dégg mën naa fa may demaa rek nit ñi bépp mala bu góor bu amul prostate duñu ni moo fi bàyyi doom ji di nga dégg ñoo xamante ni ne waaw mais waa ji kii fan lañ ko jëlee ba mu ñuy wax prostate ci góor mu naan ay mala ma baamu ko ñetti yoon bu ma dellu nag ni leen léegi bu dee ci nit la képp góor ku amul prostate doom nono ah ñu tiit na

am na loo xamante ni kilifa yu góor yi parce que yu jigéen ñi en général duñ koy fekkee sax yu ci bare parce que dañuy ragal tey euh, tabaski bu jotee ba nga xamante ni euh, lewatal nañu gàtt gi ba pare ba fees ko suñu tijjee biir bi lan la ñuy njëkk a gis ah, bu ma leen laajee ñoom dama ne yàgg ngeen lewatal gàtt gi ñu ne ma waaw ma ne ko lewatal est-ce que kenn mos naa lewatal gàtt ba gis ma mëniw ñoom ñëpp dañ naan ma déedéet ma ni leen lu tax ñu ne ah ñu ne xamul ma ne tey bien tey laa leen ko jàngal nag ma ne leen léegi bés boo leen lewatatee gàtt ba pare am na yenn kër yi dañuy bu ñuy fees dañuy ñëw ba ci nenu xóo boole kook mbaru der ba sànni ñii xale yi dañ koy jël di ko lakk yooyu boo tolloo ci ñu ko xamante ne nag dañ koo dagg sànni ca pax ma demal ni ko ruseet ca pax ma génn mbaru derba genné ko boko genné ñaari ñu ko xóoli nga japp fi nga xamé dag bo jappé rek mom lay day ko def ñaan parce que comme ay bal lañu ay makani bo boo ni nga xol seen digënté dina am ben ben lu mel ni boutique lu leer naññ la fa nek comme mbuusu toile lolu moy prostate prostate bobé lan moy liggéey day goor ñu bari ci lañuy ñuy jàng di def attention ci yenn yi lan mooy liggéeyam moom moo war a defar nit ñi nan la koy defaree ak ci lan la koy defaree mu ngi koy defaree ci deret nan la koy defaree boo xamante ni lëf ki xelam nekk na ci lëkkaloo moom prostate bi dafa am loo xamante ni mi ngi ci yuur gi fii ñu koy wax hypothalamus moom ñoom ñaar ñoo séq mbirum defar ko moom day taal lumière daal di koy mënoon nu ko konko mu ne ko lan la mu ne ko ah man de dañ maa dañ maa woo pour ma defar man yow mu ne ko waaw léegi lan la mu ne ko yow commandeel ma xool par exemple mu ne ko jox ma a genn wàll mu daal di commandé xool ba xool xool daal di koy sànni a genn wàll moom bu demee ba yor ko day jël litre bi ëf ko ci li ñuy wax le ko songeur mu taxaw loolu mooy saakara taxaw na genn genn euh, walaat bi nag mu yor ko bu ko yoree moom la war a togg soppi ko mën niw ah jigéen nag buy togg bu defaree li muy defar ba pare yow teg ko ci cin bi dafa am lu muy soxla il faut mu am tàngoor boo xamante ni moom lay toggee tàngoor boobu nag ah ci li mu koy jëlee day bari mën na ko jëlee ci këriñ mën na ko jëlee ci gaas mën na ko jëlee ci mat mën na ko jëlee ci ndéef pour ñu dem àll ba ndéef mën na ko ci léegi ci benn jumtukaay boo xam bu bees tàq la dafa courant tubaab boo ko génne nga xamante ni soo ci toggee ba pare boo tegee sa lex du lakk pour xale yi bañ lakk mooy micro-ondes waaw yaramu nit ndax yii ma wax nii da cee am mosuma ko ci gis te yéen tamit gisu leen ko ci léegi nag fan lay jëlee tàngoor bi nga xamante ni moom la war a toggee mëniw boobu ba soppi euh, deret doodu ba soppi ko mëniw ah li may laaj gaa yi rek ma ni leen seddaay taxaw na bu tar yaa ngi taxaw ci arrêt car bi say loxo sedd nan ngay def pour tàngal ko ñu ne ma dañuy ëf loxoy ma ne waaw boo ëful looy def dugal ko ci poos amoo poos looy def ñu taxaw ni ma ah, dina jaaxle ma ne ko déedéet boo jëlee say loxo ne ko nii ndax du tàng ñu ne ma ka day tàng ma ne waaw très bien léegi nag ñaari aji sëy bu ñuy sëy fan lañu war a jële tàngoor fala fala fala saakar bi war a ñu ne mani leen ñaari saakar yooyu duggante di génn tàngoor boobee moom la sa euh, euh, prostate bi di jël di ko di togg di togg di togg di togg ma ne leen jigéen ji bu toggee ba nga xamante ni ñoroon lan la war a def ñu ma day yàq ma ne ko waaw yàq boobu mooy orgasme bi léegi nak su yàkkee ba pare ba raxas ay ndabam depp bo ñëwee ndax di nga ni li togon nañ ci ñu ne ma dédé ma ko loolu moo sa so soo reyee gi mëno ko gis parce que bobu fekkul fekk na mu yak ba raxas ba tok nak di xaar beneen bés mhm. léegi lolo la ni fokk ma jangal ko sama mbokk goor yi pour ñuy xam boo déggee ñu naan la sëy bu bare baaxul ci loolu la aaju parce que mën niw boobee ñuy génne deret lañu ñuy soppi day mel ni lenn soo demee di maye deret nga yaakaar ni da ñëw rek maye deret rek ñu bàyyi la nga jóg déedéet am na luñ lay jox nga lekk naan pour lan dawul la nga xamante ni wàllu deret la moom nga maye woon pour nga mën ko remplacer parce que sinon di nga manqué deret saa soo doxee deret ba pare rek dinañ la am luñ la jox mooy loolu donc sëy bu bare baaxul te appareil boobu ñuy wax prostate soo demee ba am problème bu dee oto boo xamante ni day dox pièce bi am problème dangay ngay dem jëndi pièce bu bees wala nga dem ci tourneur bi mu defar ci mécanicien bi mu defar su ko mënee defar defar ko su ko mënee defar nga dem jëndi pièce bu bees waaye nit. du démonter ay yaramam naan da koy wee ak beneen yaram déedéet moo tax dañ leen di ressourcer procès boobu dañ koy noppal sëy bu bare baaxul mën nga def ci semaine bi ñaari sëy mën nga ko def waaye boo ko ëppalee baaxul ah am naa sama benn mag de dama du turam dañu daan waxtaan ñun lépp lañ daan waxtaan moom mu ne ma léegi moom euh, comme moom defoon service militaire ñu door ko tea léegi yëpp mu ne moom day ñun ñu wax rek mu ne non mom cinq lay door par guddi parce que ñun moom militaire la wana ko de gol mu man ko bu def lool ngay ya, ya gam sa bop non yeen civil yi togal fi ñun militaire la mu ne ko xanaa mu ne ko bes dina ñëw de mais dina nga am di nga am defet de mu ba am suñu kër nak dafa am ben euh, regard regardu ki bi ndox bi fu mu nekkon waaw sa so fo yewu suba fekk ni ko fa tok rek daa jaxle bokku lañ tuddee won point jaxle ba yow suba dem entraînement dellu si fekk mu toog ma ne ko grand grand yee tey moom suba teel gii yow daaw yow heure nga génn nii saa yi toog fii nga daal ah, mën ko am problème ma ne ko waxee da nga may ma ne ko ah àddina noonu la nee nañu xam-xam moom puso la wala benn lëg bu làqu rek mag dina ko for gone dina ko for ma ne ko comme léegi nag ñun dañuy waxtaan ci lépp amul tabu bon enfin waxal rek mënuma noonu démb ci guddi bon. dama dóor benn deux trois quatre cinq bi ma ko dóoree rek deret génn waaw léegi nag man ma yàqu naa ma ne ko gën a yàqu kaay nag ma expliqué la sarak laa mais jàng yi moo wuute fi ñuy toll moo taxoon ma waxoon na bu yàgg mais yow da nga ma waxoon ni yow euh, militaire nga dóor lañ leen TAB ak affaire yooyu yëpp tuuru wolof da koy wax ma ne ko léegi nu ma la koy expliqué pour mu yomb ci yow. su fekkoonte ni dafa am brique yoo xamante ni dañ ko war a yéegal ci benn étage bu xaw a sori léegi ñu dem ay strate nit ñi di taxaw soo jëlee jox kii kii jox kii kii jox ki jox kii am koo xamante ni dafa toog ci diggante bi dem ba nga xamane ne toqe na mënatul sonn na ko mu ne gars yi def leen bin bin gars yi naan ko non booy tàppet nga xaaral rek ñu dem kërëb kërëb kërëb mais man su fekkente ne moom bëgg na affaire bi chaîne bi mais day bàyyi brique mu daal. su bàyyi brique mu daanu kër a kër nga qu'est-ce qui se passe dama sonn gars yi dinañ jëf bin bin pour mu noppalu ma ne ko loolu la prostate bi loolu lay def parce que bu jëlee commencé togg dóor nga dóor mu indiwaat dóor mu indiwaat dóor gis nga bu sonnee moment bi nga xam ne yaa koy soxla moment boobu bu ko yoree du la koy xëpp noonu deret bi lay xëpp ma ne ko nag heureusement qu'on en a parlé du feebar du dara mais dalay wan ni faut faire attention parce que moom day sonn comme yow ni depuis la normal donc si bu bari encore une fois nañuy wax nit ñi li leen di do ñew rek nga ne ko telle chose rek euh, garab non informe juste et bien pour que parce que su ko toujours ce sera un éternel recommencement cercle bon nous ci jabet prostate bobu may wax man sama keur kou fa ñew 20 jours la amoon naa benn góor goo xamante ne daloon parce que dama tok jàkka ja lu mat ñenti fan gisuma ko ah ah sama xam-xam li mu gatt ci l'islam li ma jàng ñetti fan mom nga absenté ko délibérément ta amul dara lo xamanteni mom mo la la gàllankoor dafa melni yow yaa guiné ci bop ci islam légui nak comme man dama fu may jógee damay romb këram ah ma ñëw seet ko ba nu six heures maa noonu rek ne soxna si salaamaaleykum ñu nuyoonte ba pare ma ne ko ah man de dama dox tànk jullit góor gi kat dama toog ñeenti fan gisuma ko dama daf ma jaaxal ñun ñaar ñoo doon ànd làng ci jàkka ji di jëm ko ñëw mu ne ah, ma ne ko ndax dafa voyagé mu ne ma voyagé wu góor gi a ci biir ma ne ko lan mu ne ma fii nga toog nii di wax nii mi ngi lay dégg ma ko mu ngi dégg mune ma dafa febar ma ko lan mo tax mune bo duggé duggee mu wax ah ma tiit yaakaar ne sax febar bu daw la bi ma duggé mu ñett ñetti ma ko non toogal mu tok ma ko góor gi lan la mune mo man ni dal dama am problème sama sama sama sama euh, tour ndox bi fofu day metti metti metti ba nga xamante ni léegi su ma tour ndox su ma sama tank rek yàq sama tuur ma ne ko loolu moo tax mu ma loolu moo tax ma ko loolu koy mënoo jàpp njàpp te jàpp mënoo jàpp ñàpp kon mënoo dem jàkka ji mënuma loolu moo tax ma ne ko léegi nag daal ah sama benn doon daal moo ñëw fekk ma loolu rek man yóbbuma tinuma moo indi oto bu mu indi oto ñu ci biir oto bi rek yóbbu ba mu yóbbee hôpital ah médecin ba mu njëkk xool xool ma kii nii waa kii daal prostate la am léegi nag ni ko léegi xaaral sama professeur dama bëgg mu xool parce que comme moom a jàngal balaa ngay def dara man dama koy dama yóbbu moom yóbbu ko ci professeur ba mu indi ay élèves élèves yi nag di ko laaj muy muy tontu gars di bind di bind di bind bi ñu paree daal mu xool ko ne ko góor gi mu ne mu ko prostate nga am fi mu toll nii nii ah il faut ñu opérer la donc opération bi un million cinq cent nangam nangam ma ne ko loolu la wax mu ne ko ma ne ma ko léegi nag mu ma ah man de aw ma ko léegi nag samay mbokk nag laa bëgg a woo ah ku nekk boo defee def def def bu ñu maa jàllee xëy na ma bu matee nag ma doog dem ma ko góor gi mu ne ko lenn de xam ko tey alal ji bu matoon tey ji ji boo demee noonu suñ la opéré ah, man ak yow dootuñu giseeti faaw a ma ko waxu mag la la wax so bëggee nag ma leeral mënuma ne ma man kay xam li nga wax mëna ko tëri bi léegi nag xaaral ma ñu ma dugg sama kër ñew jël garab bi ma koy fajé wo soxna ci ma ko soxna ci mëna mëna ko tay ñu ñew ma ko sexaw xam nga sexaw mënu ko dama ko togg mo mëna ko wala yaaw jaar mo neexa jangal jàngal it ko légui li ma lay jox ni soko jëlé togg ko fuk fukki minute ak juróom soo ko toggee noonu ba bori timis ni nii jëlal kaas nga nga jari ko bam bam nu joxal baabi mu naan benn kaas bala muy teud nga defal ko non yeneen nak nga def suba midi guddi bu ko defee ñaar fukki fan na war ca médecin ba nga xamante moo ko gisoon bés bu demee fofu bala ñuy def dara dañuy dañuy dañuy écho pour xol mané ko buñ ko écho ñu ne ko mu ngi ni gis nañ ko yéen boo leen ñibbisee jënd leen ceenu xaj ma takk ko fii nekk xaj ci ko ah ma ne leen maa ko jaayanteeg man appareil aw ma appareil ne ci man dim de def loolu ba waxtu mu dellu ba mu demee ca médecin ba ko gis médecin bi daal di euh, daal di écho affaire bi xool xool xool xool góor gi ko xoromu la daan na ko sëñ bi mun a mun a mën de fi mu ne yàlla man maa ko ameel ameelatuma dara gis naa sama sët sëtam ragalootuma dara ci àddina desewuma ci dara mun na ko du problème boobu fi na mun na ko léegi man la ma gisoon ba yóbbu la sama professeur man laa gisatul mun ko gani nag ko mu ngi nii ECOWAS na ni dara ni ko léegi nag xaar pour mu gën ma nga sama professeur xëy na moom moom moo moo jàngal la mu dem ci professeur pour fa defaat noonu daane ko góor gi mun a mun na ko mën da jaaxal na mu ko lan la mu ne ko ah ba ma lay woo fii sama élèves yi dina laa ak yoon ak ñii man nit ñi nii gisatuma dara la ma taxoon ma nooyee eh, gisoo ma ko man di jaaxle naa waaw ah léegi bindaat ni ko léegi dellu sama sama sama sama médecin sama sama élève bu delluwaat moom mu ne ko nag léegi nag ñaari jaaxle laa am benn man damaa njëkkoon jaaxle deuxième jaaxle mooy sama professeur mi nga xam moo ma jàngal moom tamit gisu ko mais affaire dafa gaaw gaaw gaaw gaaw ni ko góor gi mun naa mun ne ko ah lii de mosu fee am. waaye leneen de xam naa ko léegi da ngay dem fii ak weer nga dellu si xëy na affaire daan na bëgg mu ñëwee tase moom mu ne ko wax ma ne ko góor gi ma ne ma ne ko ba ma lay jox sama garab dama ni la woon soo demee ñoom ñu foog ñu écho ko bu ñu ko écho ñu ne gis nañu mbir mi ma ne la boo ñëwee jëndal ceenu xaj ma takk ko fii maa ngi doon asaaloo man sama askan de xaj laa doon représenté sama askan fii mu ne ma ne ko lii ma yor nii du xam-xamu dem jàng man dañ ma yee sol ma xam-xamu ndono la sama kër baay sama kër maam ci sama wàllu baay ñoo yor xam-xam bi lii lay dikkee ci nit ñi dañ maa yee xaaru guddi jox ma septième année baa ngi nii tey rek ñoo bokk julli donc nit ñi li may wax encore une fois bu ñu ni nit lii parce man jàng naa sama jàng fii la yam ñeneen ñëpp seen jàng fii la yam mukk ci àddina te dinaa am benn affaire boo xamante ne encore dinaa leen ko rappeler pour won leen ku nekk yàlla am na lum la may. Tu am na lu ma ko may man dama ko koy cëral ay opération ak yooyu yëpp ay la dañ ko koy nangul yàlla ko may parce que zahir la yor ñun xam ci ci zahir na footballeur ñi nga xamante ni suivre nañu sport bi depuis longtemps Milan AC na comme Barça avec le grand Silvio Silvio Bertozzo yàlla na ko yàlla yërëm moom jiitu na mu amoon benn joueur boo xam ne jóge woon Ajax d'Amsterdam ñuy wax Ruud Gullit waaw ñu ko ñëw xamoon Ruud Gullit aayoon la mën dougal, nak rastamaan nii mën dugal ñoom ban ban sa nak yoy ah dem ba genou bi am problème bobu sax lañu do doo ko xam lan mooy télémédecine parce que tous les grands médecins bobu Milan c'était vraiment le grand Milan dara tawu leen am nañ xaalis am notoriété tout c'est comme le Barça le Real aujourd'hui et même sama euh, ñi nga xamante ne samay samay ennemi la les waa waa PSG yor nañu quoi Légui, nga léegi ñu ñëw télémédecine tous les médecins ñi mon a ni ñi mënul ñëw yëpp ñu nekk ci ci ci euh, télémédecine bi ñu à son chevet bi ñu liggéey liggéey liggéey liggéey Bah ba c'est une conclusion mooy lan Qui ba ba d'autres footballeurs ah problème bu boy booy rek comme si genre nga xamantene ne wala Eto office amoon nañ doole donc euh, am xaalis seen deret lan wax gars ñu médecin yi dara te dina len dara qu'est-ce qu'est-ce est arrivé dafa dem Suriname parce que Suriname mu dem Suriname dugg ci bourse docteur yi yi a un bi bi mu bobu sax la ko fi donc ça veut dire ça c'est une preuve patente que affaire bi amul ben côté ku nous da nga koy cëral yow di nga gis suñu suñ suñu maam fi rek bo bañ sax parce que da ngay dem suñu maam yi da ngay ñëw sa bop euh, mam sama bop na mu ngañama ben affaire rek ni la yi nga dem sa bop te compris que dara mais tuba boko ko mom à la limite moom gëmul pas quoi parce que c'est une chose lu muy démontrer lolu lay xam quoi waaw lo ne bokku ci mom rek mom du koy non déedéet chinois baa dit. nii dafa yor ay

tubaab yi suñu garab yi la ñuy jël dem dem dénaturer ko structurer ko labelliser ko yokk ci ay produits chimiques labelliser ko indi teg te naan la bu jël bii te bii suñu borom ko defal muy bio alors te tout récemment yéen koy suivre Fervex ak yooyu yooyu yi doon kii pour soj beeg affaire nee nañ buñ ko jëlee fii parce que day joxe ABC doliprane bi lan lañ ci wax. ñu ngi ko doon prescrire ñu ne jigéen boo xamante ni dafa wan na lor di kon ñu prescrire mu koy naan su fekkente ni la tëdd ci biiram góor la bu ñëwee day développer caractère homosexuel yaloor kan moo defar loolu du tubaab mais kon nag nañuy dimbali ñoom am na lu leen yàlla cëral ñun dañ leen koy d'accord mais li ñu yàlla cëral tamit nañ ñu ko d'accord parce que bu ñu toogee fii ñu ci bare tam lu ñu dëmm ba suñu mbokk yi di ñu daw waxee na say garab bi man kay dama ko laal parce que nee nañ day joxe insuffisance rénale insuffisance rénale oh insuffisance rénale su ma ci ñëwee lan ñoo koy joxe hémorroïde bi naroon naa ko ci mais fii la glutamate de sodium bi ñuy def ci affaire yooyu glutamate de sodium foo leen ko gis daw leen cyclonate de potassium glutamate de sodium mooy yàq nephron yi ku jàng di nga xam ne ne ne euh, les les rognons la les reins am na organisme yu nekk lu ñuy wax ne néphron néphron yooyu ñoo épurer le sang après la digestion génne toxines yi yóbbu ko ci vessie bi soo safee tur ndox dem tur ndox glutamate soo ko lekkee ba mu dugg sa deret day ànd ak deret bi dugg ci rein bi bu duggee ci rein bi lii lii euh, euh, caas ak safara caas moom su bëggee dund bu mu jege safara su ko defee rek nga gis mu commencé def nii rek daal di lem non lay def léegi nefron yi bu ñu leen jiyee boo euh, bu lément duggee fofu dañu commencé lem bu ñu nak nag dootuñu def opération d'épuration du sang ñu ne léegi l'organe est malade l'organe ne peut plus faire opération ñu ne dafa am insuffisance rénale léegi nak lan la tuba daal di génne ben ben appareil bo xamanteni day copier la nga xamanteni mom la rein bi daal de manière naturelle moy mooy euh, dialyse bi ñu ne léegi dañ koy dialyse képp ku dem dialyse mom dégg na ñu ne kii jalis la am woo ko pare na ci àddina ay mbokkam nañ ko jëndal nañ ko jëndal bàmmeel bu dee nag dafa jaar ci ñun ñun xam nañu nan la ñuy def ba affaire boobu dundaa suñu garab day dundalaat ne foo yooyu ñu dellu si waat deux mois six jours sama kër boo ñëwee deux mois six jours lii man docteur Siti man maa ko wax te lenn sànq waxoon naa ko ci ay émission yu passé soo leen bañee am insuffisance rénale bés ñi ki xooxu xaal bu leen ko sànniti dee leen ko lekk day raxas rein yi deuxièmement xooxu xooxu naajo xooxu naajo maam da ko daan dëbb ba mu ba mu ba mu nekk sunguf mu def ko jaga di ko boole ci cere ji moo tax mosoo dégg problème mu insuffisance rénale ay calcul rénaux yooyu ngay wax yooyu yëpp yooyu da koy dindi donc encore une fois bu ñu sonfental suñu garab yi bu ñu ko soofental lenn encore dinaa ko wax jigéen ñi euh, boo toogee ñu ne la léegi dangaa ngaa anémie ñu ne la demal jëni fer wala ngay gis baax ñu ne demal jëni fer fer boobu danga nga xam ne lañ ko defee c'est des produits chimiques ñaata nga ciy naan cinquante mille am na loo xamante ne moo gën a baax loolu te yéen xamu leen ko jigéen ñi bu ñu ko xamee bu ñu ko xamoon. duñu tok semaine te lekkuñu ko ñetti yoon ci seen lekk te c'est extrêmement important ñu xam ko dañ ko fa foyeetul lekkatuñ ko ba léegi commerçant yi indeetuñ ko ci marché yi parce que aussi commerçant su bëggee euh, euh, am xaalis day la jaay loo xam dañ ko koy laaj mais loo xam da koy indi kenn du ko ko laaj bon il n'a pas intérêt à apprendre ça moo tax ñu koy délaissé damay ñëw gis ñu di ko am na ñu koy jël mais est-ce que réellement xam nañ ko mooy mooy mooy betterave bi gis nga betterave boobu képp koo xamante ne koy lekk déjà que boo jox image direct waaw parce que substance yi ci nekk hémoglobine bi nga xamante ne moom moo sang bi da koy beesal su ko beesalee mais sang bi du màgget yow a voilà L'homme

dañuy dem seeti yu ay ganaar la ñuy wut ak affaire yooyu boos yëpp lekkuñu ganaar de xanaa de manière occasionnelle de mais lu ñuy lekk pigeon la ñuy lekk ay agneau ay veau mais doo leen gis ñu lekk affaire yu nag xar yi tamit bu ñuy jënd moom laa doon mën nañ ko jënd puukare la waaw kii jënd parce que kon nañ naan kii am na kook yooyu mais bu ñuy lekk agneau la ñuy lekk ah waaw pigeon boo koy lekk doo teel man mii moom lay lekk ganaar c'est rare ma di ko jël te boo demee ba nga xamante ne ganaar gi mënoo koo bañ a lekk pooji bu ko laal sama mbokk ñangeen yeeg faa leen ne nag bëgg lekk ne boo nee pooj yi mu ne la ah pooj moo ëpp yàpp ma ne ko moo ëpp musiba boo gisee Sénégal loolu ba ma dee jàng boobu fajagu ma ça m'a dans la tête lu tax tubaab defar benn affaire ba mu pare mu dagg tànk yi nga xam ne moo ëpp yàpp mu di la ko jox yow kuis moo fi daan ñëw boo xëy ma keesu kuis jëmal nii nii nii xew yëpp moom lañ daan jëm di ko def waa ma ne non lii moom c'est pas normal y a quelque chose ah ndekete yoo ñoom ba ñu demee donc ñoo doon def production ba ñu demee ba xam ni seen seen dëkkandoo yi seen mbokk yi ñu ngi commencé am problème mu tànk ak yooyu bon ñu dem labo xool xool xool produit chimie yi nga xamante moom lañ koy jox activer OGM bi waa nga xamante ni rapidement lo xamanteni ganar bu dee nga yar ko pour mois la mais ñom dañu bëgg parce que vous koy def nonu euh diko yar ay 6 mois nit ñi di à une vitesse exponentielle donc lolu dañu dinañ dem bo xamanteni dootu ñu am luñu lek nak def bo xamanteni affaire bi activer croissance bi ba muy mën ci ay un mois un mois et demi dégg naa sax 29 jours xawmo day ko nit ñi am développement nit donc moo tax ñu jox ko produit chimique yooyu pour mu activer sa croissance léegi nag produit yooyu nga koy wax day jàpp ci wàcc ci tànk yi ñoom nag ñu ne woon léegi désormais suñu mbokk yi nañuy lekk dënn bi laaf yooyu te jël tànk bi sànni ko bu ñu ko comme bës ñoom dañu am seen ma mëbës foofu comme ñun léegi bu ñu ko yóbbu mëbës di ko sànni nag suñu yi fekk ko fa nag récupérer ñu léegi bu leen ko sànni ñun on a besoin de ça ñu leen koy jox ñu koy andi tubaab yi nga xamante ne ñoom bu ñu ñëwee fii dañuy dem ci grande surface yi fa doon ñu ñëw fekk ci grande surface bi ni ay eh, mais eh, affaire bi yéen fan la jógee ñu ne ko ah seen dëkk la jógee ah bon yéen dafa ñu ne ko déedéet seen dëkk la jógee foofu lañ koy yooyu dem seen ambassade wax ni léegi nekkate yéen cuisse yi nga xam ne dañ koy sànni tamuy ko africains yi ñu ngi leen koy jox mu leen lor noonu la ñu bàyyi production gars yi nag jël relais fii commencé di ko defar te boo leen laajee ñi nga xam ne ñoo koy defar am na vaccin boo xam boo leen ko boo leen ko euh, doxul rek seen tànk yi day taal yi ñu tëdd di di raam loolu moo tax ma ne leen soo leen ko mënee bañ a lekk mënul bañ a lekk jël leen dënd bi te pooj bi ngeen bàyyi ko ah sama mbokku faaleen yeeg ngeen yi nag moom boo leen waxee loolu nag moom dañu ko gëm mais loolu day joxe ay feebar yoo xamante ne parce que yooyu yëpp fa lay wàcc ci tànk boo ko lekkee tamit di nga mel ni moom gisoo ganaar yi boo ko defaree ba mu rëy boo ko tegee fii bu doon boo xamante ni bu dëkk bi la booy teg rek jàppal ma jàppal ma mi ngi naaw ci euh, seng yi rek waaye bu dee bii teg ko fii jëlal sareet dem Touba dellu si waat un mètre bu ko doxee baax na te boo yëngalee mu faatu comme ñu koy lekk yëpp di lekk bu yooyu comme ganaar yooyu la ñuy mel ñu juddoo léegi koo fu léegi boo demee six mois dellu si ñu ne mi ngi nii nga ne déedéet du moo day ne waaye xott la ñuy doon comme ginaar boo yëngalee yëngalee léegi jaratuñu dërëm dërëm dërëm dërëm dugal ci kaar yi dugal ci kaar yi xale yi di njëkkanteeg mag ñi nga yaakaar ni ñii dañ leen yarul yar nañ leen mais lu tax booy yi defee noonu am na kaar bu ñu dugg booy bi douze treize ans dafa taxaw nii rek wàcc bu mu wàccee ñëwati ko teg laaj ko mu ne tànk yeeg ndigg yi mooy metti mënatu taxaw ma ne ko yow da ngaa judd retraité ngay traité man leen waaw

te jalis ku mu dal mom ça y est c'est fini cyclonate de potassium am ostéoporose yax yu fënax soo demee euh, CTO ogi fa ñuy defaree ñi ñi dam ni mais plateau bi du mos a du mos a parce que gaa yaa ngi tarang ku wàcc keneen yéeg ku wàcc keneen yéeg ku wàcc keneen yéeg boo talo sax dam parce que cyclonate de potassium bi ci def yax yi day fënax say day nooy liggéen ñi am leen dégg-dégg baleen yooyu su baaxoon ñooñu di ko defar di nga dem seen kër ba fekk ko fa doo ko fa fekk xott bi doo ko fa fekk ñoom ñëpp autant qu'ils sont doo ko lay wax nag naan baax na dalay nax ah li ma ci xam de baax na foofu nag laa bonoon euh, doon daanele tey jii euh, di leen jox di daje ba beneen émission ci jamono ñuy waxtaan ci leneen parce que yi ñu war a indi bare na li ma war a leeral bari na dañuy ñaan yàlla rek mu may ñu tawféex may ñu fan ñu gudd ba ñu mën a wax ak yéen parce que man nee naa leen yamuma ci fat dong damay jàngale jàngale bi mu ëpp solo nga won ni kii lii ko dal fan la ko dalee nan la ko dalee nu muy dikkee nan lay mën ci yaramam ak nan ngay def ba fajal ko ko ak ci ban diir loolu yëpp nag après weexal doo ko ñëw parce que ku la waxul diir bi mu koy fajee rek mi ngi lay nax day mel ni nga génn war a seeti nit xamoo fan la dëkk xamoo numéro téléphone am xamuloo xamuloo karte bu mu dëkk nga ne sa morom kaay gunge ba waaw mais gunge jox fan dalay wax fan la ñuy dem nga ne ko non dañuy dox noonu def bu amee fayda danaan la maa ngi dellu sama kër man su may génn fu la fayda dafa am foo xam ne dama fay natt bu dee da nga da nga ne ma naa la gunge yëmbal ma gunge la yëmbal bu ñu demee ba yëngal nga ne non non man ma fa yoof laay dem man na ko demal yëmbal nga ma waxoon man dafa am leneen lu muy def àddina noonu la la ngay wax lu ne am ci yaqin nit ki bu ko nax wax ko dëgg léegi nag bu fekkee wax nga nag bëggul jëfee affaire boobu yow sa jaan wàcc na lala yàlla cëroo doon ci kii bi wax nga ko moom mu ne la gëmu la wala ñu naan la fan la toog yooyu bàyyi noonu ëllëg yàlla dina leen àtte sama kër ga xër euh, xarit ba nga xamante ne dama toogoon di wax yooyu bàyyi leen bu yooyu rakkam ba di ma xaxar naan ma yow da ngay tere loo xam ne dafa xew ci jamono fii su ma roroofalee affaire bi boo koy lekk di ko tenk ni muy neexee dafa doy seen waa kër di reetaan ma jékki-jékki rek aaro na ko billaahi wallaahi taala yow bés dina ñëw man ñun ñooy toog di ko nettali waaye yow doo ko nettali ah yàlla mi dal tawul mu ànd ak euh, euh, magam dem sëyi ci ba ci dëkk ba lu ma wax dëkk ba parce que léegi xam dëkk ba dem sëyi ba mu demee sëyi am bés ñu dem xew ba ñu demee xew mu dellu si ni leen léegi xaaral ma sotti ko ndox ñëw ci làng bi dugg ci néeg ba doomu boppam génn ni sama sama sama sama covid bi yow kaay xool sa sama yaay loolu lañ ca am ñu jagat jagatee corbillard ñëw jël yóbbu lan la xew léegi waxuma la sax dañuy xolleetuñu léegi am na benn bool boo xamante du ma tudd ko koy def bool boo xamante ne léegi euh, feuille aluminium bi moom lañ ciy def da ngay nii rek dëpp yooyu la ñuy def mu leer na ni léegi lekk yooyu képp ku koy lekk yow bomb nga jël dugal sa biir buy talaate dalay bett affaire yi nag lu tax nit ñi soo leen koy wax duñ ci prêter attention parce que day mel ni nga jël benn buumu bato ni mu ngandee ñu jox la benn lancette bu ndaw a ndaw ñu ne la léegi dagg ko mais c'est sûr que ne tey doo ko dagg semaine bi doo ko dagg mais fii ak décembre di ko dagg ñu ne la nag xoolal cheminement bi janvier ba décembre yaa ngi koy doog a dagg voilà affaire bi ndànk-ndànk la ndànk-ndànk lay ñëw mais soo ko bëggee pratiquer de um, gis ko nii de manière wéer jëlal zinc zinc bu nekk sa nga yëkkati benn buñ naan baax na ne ko tegg ci kaw zinc bi wàcc ko fa trois jours nga ñëw fekk mun na ko duppet pax bu ne wël loo naan duppet zinc dina fi bàyyi biirum ni beneen bi ci des ah catuuma leen damay expliquer rek Euh, bu ñu jëlee ñoom Balla beey ñoom Yékini ñoom Tyson nag yooyu mbër yooyu nga xamante ni ñoom dañu entraîné ba sonn mënuñu mënuñu tey ni ñoom yàlla mu leen ko jël jotuma leen ah ñu entraîné ba taxaw ni ñoom seen doole léegi euh, dafa romb cadre nit léegi il faut ñu wutal leen benn euh, ñëy pour ñu jaamaarloo xool ba xam ñoom fan lañ toll na ko def lu ma yomb parce que il faut ma dem ba Tambacounda léegi nag qu'est-ce que je vais man leen taxaw leen dem ci marché bi wala ma dem ci benn débiteur ni débuté bi débuté bi wala wala wala vende kii ba jaaykatu yàpp bi ma ne ko ndax am nga yeelu mbote fii wala bëy mu ne ma benn ngi nii ma yëkkati ko ñëw indi leen tegal leen ko ni leen ngeen damb leen ko seen ñaari loxo tey ngeen dégg daal bis boobu bu doon làmb la kenn du ñëpp muñal la ñuy dégg parce que kenn mënu ko ci dem seen ñaari loxo tellement que affaire bi c'est c'est c'est c'est rugueux rigide léegi nag puusal yeel boobu nga dem jëli yeelu na na ko soxna si togg soup ngeen lekk ba très bien bi yor yokk bi nga fëgg yokk bi ngeen bouillon buñ lay wax rek bi na gëmmal bu ko samé jëlal ñaar nga toyal ba melni mel pat nga duggal ko fa yokk ba nekkoon nga denc ko ba mu am compter say waram yi ba mu doon fukk fukkel fan bi ak benn bi gennal ci mbedd mi nga taxaw xale yoy di mbel fofu di fi bol fofu rek nga ne len eh kan mo am juróom ñet juróom ñet wol gën ko abale fukki at ku njëkk a loxo loxoom bu xool ni góor la wala jigéen am na doole amul doole woo ko mu ñëw taxaw nga ne ko tàll sa loxo dafa am lu may seet mu tàll loxo bi nga jëkkati yax bi ni ko téyel mu téye nga ne ko bësal gis nga ni muy def bonbon gina nii la koy def damate sànni ci suuf kon loolu fan la baaxee mbaar moo xamante ne dangaa bëgg mu taxaw jan yu dëgër nga cay def bu jan yi nooyee mbaar bi ci suuf la jël nit li may wax lu tax ma ñëwee foofu parce que nit yax yi moo ko téye squelette bi moo ko téye léegi nag bu yax yi nooyee fu mu jëm moo tax ngay gis ñoo xamante ne dañuy dañuy dañuy euh, paa yu yàgg lam leen naan def dañuy jël bant bant bi jël seen loxo teg nii di sukk di di dox ak bant bi ah, lan la ndigg lay yàq parce que ndigg rien moo yor nit foofu lay attaqué boo attaqué foofu say say si fii kon nag nañu delluwaat ginnaaw nit li ko mën a sonal ci ñett lay jóge ci li muy lekk ci li muy naan ci li muy noyyi ñun nag Sénégal gii ndox mi sax moom maara dem si mais c'est moins grave maara dem si c'est moins grave nokk bi c'est moins grave parce que ñoo ngi gaz bu ne dañ koy gën mais lekk gi lekk gi nañu ko contrôler bu yoon yooyu ñenn ñag su ma waxee ñu ne waaw man de su ma su ma nekkee sama kër du ma ko lekk waaye su ma génnee dem xew dama ko jël mën na ko nag li nga may wax waxoo ma dara li nga may wax mooy woykat bi li mu doon woy su ma tukkee naan su ma ñibbisee naan ma ne ñu ne ma kooku loo xam ci moom man leen kii naankat la ah lu tax nga koy ma ne ko waaw wolof njaay de nee na wéet gore wéttali ko gore yàllaa ko wax wéet gore wéttali ko gore parce que foo toog sama bët baa ngi toog ci yow léegi nag kooku su ñëwee toog foo xamante ne ay ñoom ñëpp xam nañ ko ay mbokkam ak yooyu mu ne du naan bu génnee foo xamee kenn xamu ko mu naan ba sambara mais kooku naankat la day nëbbu mu ngi noonu loolu soo koy bañ amul sa kër amul mbedd mi man maa ngi nii fukki at ak juróom-ñett suñu kër gu mag lekk seen lekk daf maa xeeñu bañ naan dugg dugg na sama gémmiñ mbir soo ko xamee fii affaire bi grave sax mooy yàlla nee na loo xamante ne xamuloo ko soo ko defee ngàññaay ba wala wala wala lama ma ca nar a la ma tàpp du bari mais boo demee ba ñu leeral la mbir mi ba nga xamante lii mooy def loolu nga jël ko jox nit wala nga dugal ko sa bopp yow da ngay xaru boo demee suñu borom bu fekkente ne fukk la la waroon tàpp bu fekkente ne xamuloo woon léegi ñeenti téeméer la lay tàpp parce que xam nga ba pare def luñ lay tere moom bàyyi te am na sax jàngat bu boo xamante ni yéen waroon ngeen ko nit bu la bàyyi lii dabu sa bakkan mais bu fekkante ne sax dana naan la bàyyi lii yow loolu boo ko wala defal lii soo defee loolu moom miy wax moom lay moom la affaire bi eh, di defal lu baax eh, mu ne nga ne ah kii fan la ma demal wala la ma defal ba ma koy defal lii waaye bu la nee bàyyi lii nga ñoŋal sa bakkan bi ñoŋal sa bakkanu doom ñoŋal sa bakkanu askan waaye fa lii lay xam di fa lii lay xam di waaye nag daf ci am ñoo xamante ne dañu mel ni docteur Cissé rek bëgg a laaj ah, kii fu mu toj waa ah, kii fu mu toj ki mu toj ay ay ay ay démentir rek te amuloo ci benn yaqin te li mu lay wax noonu. seng bee kii bi def ko nga xool day mel ni buñ la waxee ni la bàyyil bàyyil moutarde bi ngay bi ngay togg ma ne ko léegi lu simple laa koy wax en dix minutes ñu démontrer la pourquoi ñu ne la bàyyi lan ngay def jëlal kaasu attaaya nga sotti ci moutarde bi demal ci bitig bi waxuma nga jël boo xamante ne demal ci bitig bi nga ne ko léegi mu jaay la lamset boo xamante ni bés tàq yaa koy dagg ci bakkatam lamset boobu jël ko rek dajji ba pare rek ni ko sëm ci affaire bi toog leen ngeen déclenché seen chrono dix minutes boo leen ñëwee da koy def ndox luy def ndox ya weñ en dix minutes kooku bu duggee sa yaram lan la koy def wala nga jël kii bu bees matalaati res bu bees teg ko nii jël affaire bi diw ji xool ko nii muy liggéey la muy liggéey ngay xool amul demal ma ñëw docteur si du la wax lu lay nax soxlawul sa alal dafa bëgg a ñoŋal sa bakkan ni bakkanam ni mu bëggee bakkanam ñoŋ ay doomam ak ay mbokkam parce que ñun ñëpp doomu aadama la ñun ñëpp ay mbokk dañuy toogee fii gisewuñu rek nga juddu nekk fii kii juddu nekk ñu ñun ñëpp ay doomu aadama la sama maam nee na koo ni yow ñoo bokk mu ne la bokkuma ak yow mu ne demal ba sa maam aadama ak awa nga làqatu foofu nee ko konteel say maam bu ñëwee ba foofu rek ñun ñëpp benn lañu Donc, encore une fois, c'est pour le bénéfice de tout un chacun. Notre nation a besoin de gens valides. Nous devons la jeunesse bo xamantene jeunesse bo xamantene bu valide la bu valeur meun liguey ñu développer suñu dëkk mais bu fekkenté tout le monde est malade mais dëkk bi nan lañ koy mëna développer su ñëpp fébaré xalé yi fébar mag ñi fébar goor ñi fébar jigéen ñi fébar mais kan moy développer suñu dëkk man li motax may wax man loolu moma soxal adina bi nañu wër pour mën a nekk ci compétition bi compétition nag dalay fekk nag nga taxaw dëgër mais bu fekkee ne da ngaa nooy feebar mais nan nga ciy bokkee suñu dëkk nan lay développé mais dañoo sonn ñun dañoo war a jariñoo suñu dëkk jariñ suñu dëkk defar suñu dëkk mel ni ñeneen ñi gis nga chinois yi dañoo gëm seen bopp dañoo gëm seen bopp moo tax ñu développé ñun nag il faut que ñu delloo si waat suñu xel xam ne ñun kenn duñu développé ñun ñooy développé suñu bopp li tax ñuy développer suñu bopp parce que toutes les ressources am na fi xel mi am na fi ah lan la rek dañ ñu bloqué dañ ñu bloqué mais xel mi mu ngi fi capacité bu ngi fi les sénégalais sont intelligents ils ont des capacités mais on les a bloqués jumtukaay tubaab xam na ne saa yu ñu joxee jumtukaay ñu romb ko moo tax duñu jox jumtukaay yi léegi nag travaillons pour nous-mêmes. nañu liggéey suñu liggéey chinois yi ba conv ba euh, seen kii bi di leen wax na naan la ñun mën nañu liggéey ak yooyu ñee dañoo yor seen jumtukaay ñun mën nañu liggéey ñu ne nan lañu liggéey mu ne suñu loxo ba mu leen waxee kaay leen ñu tracé canal du euh, canal canal rouge bi mais seen loxo lañ ko defaree la longue marche seen tànk lañ demee pour xool ñu ne nag dina am na yoo xam ne def ci yoon bi c'est normal parce que c'est la loi de Durbin les plus forts vont résister légui bu ñëwee ba àgg nag léegi du won ni c'est possible ñu mëna taxaw développer suñu dëkk xoolal légui la Chine il y a 20 ans de cela la Chine était derrière nous xoolal Chine fi mëna ni actuellement c'est la première nation au monde suñu la wanee seen dëkk macha allah lépp lañ defar dañu gëm seen bop suñu bi nañu gëm suñu bop soxna yi nañu gëm suñu bop bàyyi leen jooju yi ngeen di jël baaxul tey baaxul ëllëg dellu leen xorom géej laurier thym soble la tamaate doom nefe toggee leen ko te bàyyi yee dañ leen leen nax rek gis nga gis nga saf-saf weesuwul fii pour weesuwul put fii la jam te ñi leen di nax pour ki kii personne n'en amène chez lui kenn yóbbu ko këram kenn jëfandikoo ko donc nag tey euh, dama xaw a guddal sax mais parce que aussi c'est nécessaire man j'informe

kon wa Mère de Vision TV euh, sama téléphone ku 76 596 75 78 ou bien 77 273 39 12 ma répète. 76 596 75 78 77 273 39 12 kon nag por benefício de misión que yo